pare ko finaalo yàlla aca diggante Sa Thiès Fambouda aca ndeysaan final revanche ndeysaan barke Dembo Njaay lañ daje fi moom moo di Medina Sangako ndeysaan Fambouda yéenu ba ci kaw dóor ci suuf ndax wala Sa Thiès day loolu aca 100 pour cent Mbouloum TV i leya nuun e fa ndeysaan diggante Sa Thiès numéro 2 andoona yee refu fa mbuda ndeysaan ame andoona yee refu Medina Sangako final a reɗu yot bo naf lang ka ndax kani wala Sa Thiès ka rabdinoox ka aca ndeysaan gagan mbamira leer ka waaw waaw aca ndeysaan le 4 mai 2024 aca meek na saate fe o ndeysaan bege a wa Ndumbuj siyaare a den wa santang ba fate uma leen Khoudia Ndour maa ngi lay bege di la siyaar ndeysaan doomu ndey njoor bege naa ko siyaar naa ko Fatou Sarr borom Santangba bëgg naa la siyaar naa la waaw waaw di bëgg waa Santangba waa Toubacouta bëgg naa leen ndeysaan waa Sangako waa Sandikoli waa Jagle fàtte wuñ leen aca waa Mbulum bëgg naa leen siyaar naa leen aca di bëgg Boy borom jongon bure ndeysaan maa ngi di ko siyaar Ibrahima Sow bëgg naa la waaw waaw Mohamed borom sin mag maa ngi lay bëgg di la siyaar aca Mama Jaali borom mbulum bëgg naa la di bëgg Bure Sarr Ndey Sarr mag gi bëgg naa la siyaar naa la waaw waaw aca Ablaye Ngom maa ngi lay bëgg borom Njambur di bëgg Mariama Njaay borom Ndorong Lok ndeysaan Modou Sène borom Foundiougne bëgg naa la ah waaw aca Mouhamed Thiaw borom Ndiosmone Fodé Diom borom Soum bëgg naa ko ziar naa ko aca Bouba Titi Camara maa ngi lay bëgg borom Jirna Gara Moussa Fall fàttewuma la sama doom yaay hee Sa Thiès na faamu da bañ Allahu ndeysaan Sa Thiès numéro 2 ndeysaan daan na Fa aca loolu mooy lamb aca di bëgg 100 pour 100